ginnaaw bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi njiitum réewum Sénégal jëloon na ay dogal ngir tëj école yi ndongo yi toog nañ lu toll ci ñetti weer jàpp ñeent jàngiwuñu ba tax tey ci alxames ji yamook ñaar fukki fan ak juróom ndongo yi jubaliwaat nañ sa école ba ngir eggaliwaat seenum njàng monsieur Koundoul ñu fekk ko ci école privée Cheikh Ahmadou Bamba di àddu di ñu xamal ne jël nañ lépp luy mesure ngir moytandiku jàngoro jii def nañ fi ñuy raxasoo tegal leen mouchoir bu ñu duggee tamit balaa ñuy dugg dañ leen defal thermoflash ñu xool leen loolu tamit wax dëgg yàlla respecté nañ ko comme ni ko comme ni ko suñu kilifa yi waxee rek au niveau de l'IEF ak niveau ministère ñu ngi koy sàmmonte ak loolu. dolliwaat na si ne dinañ def seen kéem kattan ba jàppale ndongo yi si examen yi ñu dëjmal. xale bu toog 3 mois wala 4 mois jàngul kooku boo ñëwaatee dina métti si moom mën na am sax la mu jotoon a jàng mën na mu fàtte ko mais ñun moom en ce qui nous concerne ñun école privée Bamba. dinañ fexe fexe fexe ba jéem na xëccaat euh, dalal seen xel yokku leen courage pour ñi nga xam ne ci lañ jëm muy yi nga xam ne dañ ko puusaat ñu mën ci am satisfaction. madame Siré Mbodj Socé Diouf nekk école publique Cheikh Ibra Fall moom it mu yemoo xalaat ak mu Koundoul. matériel sanitaire bi macha allah nekk na en place waaw disposition pédagogique aussi assuré nañ ko ñun dëpp le pare woon nañ ba pare. waaw am nañ fi neuf classes de CM2 classe bu ne ñu diviser ko en trois parties ce qui fait en tout neuf classes waaw distanciation distanciation sociale bi c'est assuré yëpp daal def nañ ko yëpp daal mat na incha allah. ba tey si ay kàddoom mi ngi ñaax waajur yi ñu dalal seen xel ndax dinañ sàmm élèves yi. Euh, parents d'élèves bi ñëw nañ fi am na fi quelques parents yi ñëw ñu leen di lancer message di leen wax ne nañ nañ dalal seen xel parce que yaakaar naa ne xale yi fii à l'école fii lañ gën a amee sax euh, kii kaaraange ne si kër yi parce que kër yi dara wóoru ci xale yi ñu ngi fo boo demee génnee ci mbedd bi ñu ngi football ñu ngi def lu nekk di di di jege wante di def yëpp te fii école ñun dinañ veiller ba nga xam ne dinañ respecter les barrières waaw les barri barrières yëpp dinañ ko respecter ba pare ñun enseignants yi aussi ñun ñoo ci des je pense que euh, ñun kenn duñu ko dàq daal force de l'ordre gis nañ seen taxawaay gis nañ personnel de santé bi seen taxawaay ñun tam enseignants yi dinañ def en sorte que ñaari weer yi ñu séparé si examen yi dinañ ko mettre à profit ba nga xam ne jour examen incha allah xale yi dinañ ko mën a def si ay conditions yu baax. njàng mi ak njàngale mi am sooxe lool ci 2020 bi ñu nekk ndax li ko waral di mbas mi lëmbee àddina wërgal këpp di coronavirus ba tax nag ñuy laajte ndax duñu mujjee ak année blanche bi ñuy ragal.